mbokk yi maa ngi leen di nuyu galaaw bi nga xamante ne jóge nañu euh, parcelle gis ngeen foofu nu mu feesee gars yi euh, fees fa dell te dëgguñu maa ngi fi nga xamante ne moom mooy golf sud ko ñu Balla Gaye 2 ndax kër gaangee mais gars yi dañ ñoo baare fii kenn mënul dugg ñi fi fekk nag bariwul comme parcelle xaw ma lu ko waral xanaa ma laajte sama waa ji sëñ bi maa ngi siyaar. delloo siyaar gaan tur bi nan la. man maay bu Balla Gaye 2 hmm. waaw. alors koñ bi. gars yi bari de nu mu demee noonu. bari nañ de bari nañ de bi ngeen ñoo la rek xam heure bi ni gars ñooy surveiller fii ko waaw. ñaata temps ngeen fi def ngeen toog di veiller. def nañ fi ay 6 mois lañ fi def kay 6 mois waaw. Balla Gaye 2 animu. Balla Gaye muy fi muy fi muy fi kay. waaw. nan ngeen di def suba. suba sawaay dañ koy jàpp daan ko rek dañ koy duma daan ko. Modou Lo laa wax de. Modou Lo Modou Lo mooy kan. Modou Lo mooy kan Modou Lo daf ma ëpp. mbër bu yéex mbër mbër bu yéexee ñëw man ma bëre ak man maay bëre ak moom mbër bu yéexee ñëw man maay bëre ak moom dañ ko sa waay dafa mat baat kii lu mu mat sa waay matul. ñoo ngi ziar bu baax tribunal la. Asib enfer doomu nday Balla mais lan mooy Asib enfer. Asib dafa xew si jamono mooy xale bi lakke fu mu laal mu yàq. yi dafa mel ni ngeen tëddi wala nu mu demee noonu. tëddi soo xoolee nga xam ne combat booy yëpp instant bi nii nii nii nii dañoo pare. nelaw amul jeex na jeex. mais ko ñu Balla Gaye euh, ko ñu Modou Lo xumb na de. kon si biir ko gën a xumb. bu ñu yaakaar ne ñoom dañu ñoo nekk fii rek. ñu si angal yi si ruqi di leen xaar jeew ku fi ñëw ku ne di nga xam ne lépp dëgg la barki Seydina Muhammad bu ñu jàppee ne dañoo nelaw ñoom dañuy nax seen bopp. mais mais mais mais mais grand dégg naa jàpp ngeen fi benn waa joo xamante ne dafa ñëw indi fa ay bagages. non loolu ay détails la rek loolu ay détails la ndax ñun loolu taxu ñoo jóg xam nga luñ tax a jóg suba moo ñu tax a jóg. lenn rek laa koy wax Modou. barki Seydina Mohamed suba. Oh, suba yuuxu dina jëf fu ñu ko foogeewul. man lenn rek laa koy ñaan grand buñ ko daane ah. buñ ko yëkkatee a jóg akalaat Balla Gaye nangalu ko na ay papa yu mbër yi. bis la wax man loolu laa ñaan combat bi woon mu bañ. d'accord buñ ko daanee na yëkkati Balla Gaye okalaat ko na ko yaay papay mbëri nangu naa jébbalu naa bu ko defee rek. nga may sa delloo ziar bu baax. mais ani gan. gan moo ngi fi. waaw. fa ma toll nii le moral est bon. si. est-ce que xoolal fii maire yëpp ay veille heure bii maire yi ngi xoolee paa yi ñëpp. tuut tàng yi yaa ngi tuut tàng yi. moo nag amul duñ koy wax jour làmb ji. na ñëw yaru rek daan ko ci daan bu sedd. te mu bàyyi affaire yooyu noonu muy dund amul sens. xam nga lan laa koy gën wax nee ko nag. na xam ne ñun ñoo ñëw na ñaan naan fekk si leen dóor leen loolu dara dàq ko mais suba fekk si leen dóor leen te xoolal nee na nag 10 heures lay dem mais ñun midi la ñuy ñëw midi la ñuy ñëw nañu fa jiitu moo ñuy dalal nañu dalal. alors koñ bi ni mu nu mu mel bokkut ak ko ñu modloo ko ñu modloo moom moo gën a euh, jax xam naa li gars yi tëddi la rek mais xam naa suba aussi euh, di ngeen gis ci fii nga xamante ne moom mooy buntu këru Balla Gaye mu fees dell maa ngi leen di jox di daje suba incha allah ñu dellu si fi nga xamante ne moom mooy koñu Balla Gaye xool na la gars yi di dundee li nga xamante ne moom mooy euh, avant combat bi tiis waaw dëgg di waajalee suba suba ñun ñun duñu waaj toujours dañuy pare ñun supporter Balla Gaye fu ñu fekk pare na nañu quoi ah, noonu la fa demee ani Balla Gaye fu mu toll nii. Balla Gaye instant yi moom mi ngi nelaw. day dal waaw war a bëri Modou Lo ngay nelaw. non ñun ndox li bala la wax rek ndox du bàyyi yoonam quoi ndox fi mu daan jaar saa yoo demee fekk fa teeb teeb. Mhm. alors gis naa koñ bi bëriwul nit buntu kër Modou loo ngi fees dell yéen fii gisuma fi ñu bari lu tax. waaw ñoom noonu la mën a demee quoi parce que ñoom il fallait que ñu yenn combat bi mais ñun combat bi yenuñu ko dañ ko wàccee. suba si suba si des yàggatul du ma ne suba sax ay ay ay heure moo si des ñu dem defaral ko ñibbi si incha allah si kattanu yàlla. d'accord maa baay. Hmm. le moral est bon. bien sûr. lan ngeen di wax Balla. sëñ bi Balla amul luñ ko wax. yàgg nañoo bégloo xam nga. combat bi ma damay xalaat Balla nan la ko war a mën a daane quoi. baax loolu tiit la wala. non non comme ça maanaam boo xam caxabal la ko war a def wala mais ndam li moom day waaw. de toute façon moom xam di ko wax rek na teey quoi na xalaat tamit supporter am quoi dañoo sonn waaw. na teey yaa war a teey quoi si làmb ji. na teey ah non bi laajul raak. prib dib la quoi. prib dib. Modou Lo ngay waxal prib dib. seconde non ku la daan seconde moo la mën quand def 2-0 nii. 2-0 la waaw moom lay doon incha allah si kàttanu yàlla te mooy mos a am. seen ci seetu 1-1 yee. Ah. damay ñu boole lépp taal quoi. Ah. waaw incha allah si kàttanu yàlla. ani Balla. Balla ngi dalu. lan ngeen di wax Balla. Balla ah liñ koy liñ koy digal ñun Balla amuñu leen liñ koy digal parce que dafa def si arène bi lu kenn deful te keroog da ngeen seetluwul lu garaaw ñett ñu rek ñëpp ñoom ñëpp la teglee. Ah waaw ñoom ñëpp la teglee nag. ah Tyson Yékini ak seen ak Mor Lo moomu. te Mor si ku mu jébalu def ko sëriñ kooku kooku dañ ko daan si benn saan ñaari jël yu leer nañu moom moomu ñu jàpp ko daan ko si 21 secondes te dafa ne xale la ñu jàpp ko sànni fële jël bu set 8 21 secondes. bii bii yoon buñ tuuroon saako dugub fii ñuy bëri par pep Modou Lô du am benn pep barki borom sikoor yi Balla moo ko mën tey moo ko mën suba billaay wala affaire yi ndekki la rek dañoo ndekki woon testu bi ñu tegee ko ne ñu xiifee dañuy jël rek lekkaat waaw maa ngi nii rek maa leen di nuyu bu baax mais di leen wax leen rek jour combat ba na taxaw dëggal boppam quoi waaw na dëggal boppam gis nga ñooñ ñoon taxaw noonu di wax jegewuñu Modou Lô jegewuñu Modou Lô fenn mais moo loolu ma lay yóbbante na taxaw dëggal boppam. ñu defaral ko bagage ñibbi si quoi. waaw Papa Sow moom yaakaar koo dóor mu daanu. Papa Sow moom nga yaakaar dañ koo dóor mu toog. waaw kon seeti keneen koo yaakaar ko ngeen gis lépp dëgg la tomorrow incha allah. barki borom sikoor yi ndam li fii lay ñëw incha allah. incha allah si kàttanu yàlla. seen tiset yi ko bañ a taal quoi. nañ ko na toog bër bu nga ne lekk ay ginaar bu suur dem esat loolu waaw ziar sant bu baax a baax. combat bi suba yéen a ngi koy waajal. waaw ñun moom non stress de ñun moom comme d'habitude bala Gaye ko xam moom ci lamb na wax dëgg yàlla nag làmb ji bu neexee moo tax waaw man mun naa ne Sénégal yëpp buñ sañoon Balla Gaye daan parce que Balla Gaye mooy xoromu làmb waaw naa ne yëpp xaaj bi yëpp Balla Gaye faral parce que Balla mooy xoromu làmb Balla bu jigee ci làmb ji làmb ji safatul dara parce que làmb ji meloon na fi noo xam ne ni neexatul stade Léopold Sédar Senghor équipe nationale sax football na feesul Balla Gaye bàyyi làmb ay ñaata kii ñëw fesale stade bi seul mbër mu fesale stade bi Modou tey ba amuy buzz tey na ko sante Balla Gaye ba ñuy bëri lamb bu njëkk ñoom ñaar lam boolewul leen mboolo moo leen boole Modou Lo ba amuy buzz tey ci nii nii ci lamb nii na gërëm Balla Gaye grand maa ngi siyaar sant ah, da ngay coob nii yàgg na mais grand ngeen war a bëri suba yow amoo pression pression Balla Gaye tax ma Balla Gaye suy bëri ku munti bëree du ma am ndax lan dam ko wóolu hmm. waaw Modou Lo si digg ñànk teg bi lañ ko daane woon xam nga soos bi mboroxe xele woon bii paa ci nu maafe la mbana dañ ko ci ñeexal ñu lekk ba mu waaw deux zéro force kàttanu yàlla suba ci kàttanu yàlla laa la wax parcelle bu ñu yéexee duñ gis jël bi bat ci sëñ Bamba waa parcelle bu ñu yéexee duñ gis jël bi kàttanu yàlla prix dëgg la ba sëñ Bamba da nga waxoon nag gazon stade bi yëpp mu ngi koy yàq bu mu xooli gazon estaatu jàmm. la koy xoolee. parce que dafa galaaj ak galaaj ba mu fees. tàmm na di fi yónnee wax mu bàyyi yooyu te gëm yàlla te xam ne suba dañ koy daan. bul naka waar. ne ko am na problème. alors alors mbokk yi comme ni ngeen ko gisee sànq wax naa leen ko koñu Modou gis ngeen ni ni mu feesee ni mu xumbee fii nga xamante ne moom mooy koñu euh, Balla Gaye bëreegul nit wala tëddi nañu. en tout cas li ñu ci mën a gis mooy ñoom xam naa suba dana ñu ñëw en masse donc bul leen fàtte ni suba danañ leen jox lépp loo xamante ne soxla ngeen ko ci avant Balla Gaye di génn incha allah fi nga xamante ne moom mooy këram également Modou Lo balaa moo génn këram loolu yëpp euh, di ko am ci seen chaîne Equivox TV ci seen biir émission Vox Arena mbokk yi xanaa di leen jox dig daje ba suba incha allah.